met du gris ou il a du bleu. C'est simple. Fais-toi belle en étant raffinée et classe. su dee jigéen soxla woo maquillage bu extravagante. surtout bul def ay. Euh, du rocaille ah bon d'accord mën <laughs> ah ok. <laughs> Euh, euh, naturel le plus naturellement possible defal coiffure bu soft solo sa talon yu yam bul bul def lépp la nga xamante ni daal vraiment du la mettre vraiment vraiment en valeur foofu noonu boo fa toogee et puis aussi. loo ci bëgg dolli. et bon au fait tey jii da ngay gis ni nii les secteurs professionnels diffèrent. Mm-hmm. kii ñëw pour postuler pour nekk présentateur télé est-ce que c'est les mêmes codes. qui se maintiennent mm -hmm. ou kooku peut se permettre justement de mettre des rêves des farages des des euh, orange corail en fait cela diffère parce que tey jii mën nañ la woo pour nga animer un je sais pas une émission qui n'a absolument rien à voir peut-être avec l'émission matinale qui peut être une émission ba nga xamante ni soit c'est pour jaay par exemple léegi yow di euh, di di di jaayal produit am na la ne écoute solal par exemple mën na dama lay solal orange tu es obligé de le mettre parce que loolu laa bëgg nga jaayal ma est-ce que comprendre nga ça dépend si li si si spécificité bi nga bëgg en tout cas ci bi nga bëgg tey jii nag ñun nga xamante ni on est vraiment dans le secteur conventionnel les journalistes à la base on peut pas se permettre d'aller en entretien et puis s'habiller comme si on était vraiment euh, na ma yàlla baal des drag queens quoi macha allah <laughs> macha allah merci beaucoup sincèrement hein n'est-ce pas. Ouais, c'est important. tes internautes disent que tu tu es tubaab euh, mais xam nga sa cosaan ah bah oui. ah bah voilà. xamul ne aw aw ab lébu. lébu pire déglu leen ma lébu pire nag 100 pour cent bu kenn yaakaar ni déggu ma dégg naa olof bu baax ni kiy déggee olof dégg ngeen. <laughs> man moom sama professeur lay profité rek daal di ko nuyu rek muy Marie-Jeanne euh, euh, Ndiaye Coly mm-hmm. euh, franchement elle m'apprend beaucoup ay nobody ay yooyu noonu termes yi daal ba léeg-léeg sax damay bu may làkk wolof donc je termine avec un seul point toujours bien se préparer ne je ne soyez jamais en retard préparez-vous avant d'arriver mooy dossier yépp ya nga xamante ni di nga ko soxla pour société boobu nga jëm préparer ko n'arrivez jamais en retard bu la woowee huit heures trente fexeel ba nga génn sa kër à sept heures trente comme ça tu as eu trente minutes de marge parce que fii embouteillage yi dafa bëri et vice versa. voilà Yacine dogguma la mais dafa am benn euh, anecdote bu ma am man dafa am benn centre d'appel bu ma waroon liggéey sa fait trois ans quatre ans. Mhm. may dem defi entretien di dajale sama dossier yi tout ce qui est diplôme CV et cetera mais dafa tombé au période taw. deuxième étage laa jóge ci escalier yi daanu ba ci suuf sérieux sérieusement sama papier diplôme yeeg yëpp dugg ci biir ndox bi oh. donc je pouvais pas dem ci photocopie wala dara c'était ay sept yooyu noonu mu ma génn taw bi accéléré wu ma yéeg ci pont Padois échangeur bi pour rejoindre kii bi euh, xam nga escalier dafa wàcc ci suuf may ma daanuwaat foofu sama tubéy bi xar ma dem noonu laa jëlee <laughs> sérieux noonu laa jëlee taxi daal di rejoindre dem euh, euh, société bi mi ngi nekk fële ca cité Kër Góor gi c'est pas loin de <laughs> d'accord ma dem ba ma demee ba foofu ni ma dugg see ma dugg si affaire yi metti ma ba sama baat bi dee donc j'avais pas de chance pour ñu jël ma déjà ma voix est cassée j'ai pas de diplôme j'ai rien enfin je vais parler de de de Zahir ou de Batine on va dire circonstanciellement non de si Zahir laa wala si Batine waxal ci Zahir ba ci Zahir sa wërsëg a fa nekkul woon rek. jël nañ ma. jël de. ah kon loolu si baatin sa wërsëg mi dama dem ba foofu forcer sama baat bi et cetera. en fait dama dem. voilà loolu la ma ni. il s'est levé ah, ba pare ni ma daanoo sama kër kenn yeewuwul. donc personne n'était au courant. noonu laa jógee ak sama yaram bu xoosu daanuwaat ci pont bi dem ba pare embouteillage am ma arrivé en retard duno heure de temps après ma dugg si ci biir après ma fekk ñeneen ñi doon def si entretien ñoom ñëpp dañoo ñëwoon en retard mais femme bi gis ma ne ma qu'est-ce qui pas bien. vite. après en mhm. après on man bi may dugg si dama ne. c'est des signes que ni on va pas me prendre. anecdote boobu laa la njëkk a laa jàpp mais pourquoi on devrait prendre parce que loolu noonu dafay wane ni. Euh, motivation oui justement. parce que mënoon nga toog sa kër ne dama daanu. justement am na ñeneen ñoo xam ni taw bi moo tax ñëwuñu. mais femme bi dafa ma gis dafa gis ñun quatre lañ. y avait deux femmes ak benn xale bu góor ak man donc mu jël ñu ñun ñeent ñëpp mais ñeneen ñi ils étaient nombre de douze kenn ñëwul parce que taw bi lañ doon wax sénégalais bëggul ali bi la am ay tafa taw moo tax ñëwuma dama lii sama yaay moo lii. wala la persévérance à payer. façon ñun moom sénégalais naka jekk dafa tayal ak mën a na ma yàlla baal wax lu. non si si si si tu leur dis l'entretien c'est à 9h ils oh, manque d'organisation. bonne organisation sénégalais bu bëggee def dara daxay def de. Ah les sénégalais qui sont l'étranger ñun la. Hmm. ñoo nekk ci biti. étranger bi moo leen jàpp le système c'est l'esprit non système bi contexte bi la contrainte. mooy que fële kenn du la may cent francs kenn du la may deux cent. Hmm. benn euro soixante-dix bi ngay duggee métro da nga lijjanti. Hmm. tu vois. pas c'est c'est bi ñu nekk fii moo mel noonu. dañu tayal di ñaan fële da ngay ñaan teg la agresseur tëj la <laughs> fii nag moom amul loolu da ngay ñaan ñu may la wala nga xëy taalibe um la da ngay xëy ñu ñaan la cent franc taalibe bu daan la grand doo ma sarax cent franc mais cent franc c'est trop. <laughs> n'oubliez pas ne soyez jamais en retard. et si vous avez des problèmes waaw da leen saraxe parce que anecdote euh, sama copain bi. gi vraiment bëgg ma waaw cicatrice ngi nii di wàcc escalier ay dafa xaar. yooyu yëpp préparation olof bu gudd laa sol. donc waay waay waay. <laughs> jërëjëf ñu koy Seydi Makhtar doon bàyyi. alors donc Yacine ma ci lay bu baax a baax ponk bu am solo la. mais attends ba tey dama amagul numéro commercial. maanaam bu buy terminer 31 31 wala 80 80 pour le numéro euh, bi nga xamante ni moom la promettroon en tout cas ñi ñuy seetaan ñi bëgg a déposer seen CV wala ña nga xamante ni c'est des des recruteurs mais bu soobee yàlla may leen ma rek fii ci biir semaine bi incha allah je vous promets que je vais le faire. on de un se faire rembourser. de payer. Mm-hmm. elle va vous payer incha allah alors ci noonu nag lañ koy jaajëfal bu baax a baax. ba tey rek on reste sa compagnie et ci noonu la ñuy dem ci ki nga xamante ne mooy soxna soxna bi nga xamante ne dama koy nuyu ba pare rek door ko dalal ci rubrique am. nuyu naa Lasma nuyu ñu toog fii nuyu ñu seetaan namoon naa leen. ñoo la raw dañoo raw sax dañoo nam sax tàggat yaram bi tuuti mm. am information yi mm-hmm. xam euh, professionnel yi ak kii euh, footballeur yi fu ñu toll gune ñu toll mooy euh, tàggat yaram bi nag tey fi ma koy doore neexuma dara dara dara dara parce que loo xam ne keroog rek Yacine mi ngi ko rek wax te boobu Yacine waxu nawetaan lu doon wax mm-hmm. mais cette fois ci li am démb ci Alassane jigo ci mm. football professionnel Ligue 1 la xewee mm. ëpp na diggante ba si biir tàggat yaram ngi noonu diggante AS Pikine ak Casa Sport pelanti am nag amul temps additionnel bi jeex na ak jeexul ki nga xam ni mooy arbitre mooy maître terrain arbitre mooy décider même su juumee même su juumee ah jarul yenn violence yi ba sànnante xeer am fa ci ñaari parti yépp gaañu gaañu am ci mënuma mm. wane yooyu image parce que image du yoon loo xam ni rafetul ci gis-gis bopp yi toj am ñi seen loxo gaañu ñi bul xam parce que sànnante xeer jóori xeer mën nga xam fu muy commencé moom bul xam fu mu yem mm-hmm. ci lu toll la football professionnel bu Sénégal mm-hmm. ku toll ne Sénégal nga xam ne ci wàllu Afrique ñoo jël paie ku toll ne Sénégal moo am ay star yoo xam ne gone yi ku mel ne ak Koulibaly ak ñu ni mel mm-hmm. xale yépp bëgg nañoo doon ay Sadio Mané ki Koulibaly ñu nekk ñu ñu respecté sur l'international soo génnee nga koy xam parce que ñooy dem ci compétition yi Sénégal toll foo xam ne football local xale yi bëgg ko loolu centre yi di gën a am xale yépp bëgg def tàggat yaram métier ñu toll ci ay supporters di sànnante ay xeer ay supporters di attaquer arbitre ay supporters di waxante lu ñaaw ba deret di tuuru ñaaw na trop ci gis-gis ci wàllu ni mel. Assane. yéeme. <coughs> wax dara. dama choqué ba Ah, waaye euh, arbitre bi lu tax tasul match bi bi temps bi jeexee. toujours problème arbitraire la ñu am. toujours toujours. wala lii ay magum jëmm ñu toog di di kiiwoo di violenté wu nii nii lan la. man xam nga internet dinañ ne man dama bëri anecdote mais gis nga man gis nga euh, Ibamar stade Ibamar Diop. Mhm. dama seetaani woon match njaccaar final. parce que Medina laa juddoo 41 angle 22. donc ñoom duñ doon def seen final man musuma dem stade ma ne damay dem toog mais mool bi. mool birik laa la wax la ñu doon sànni. ndax affaireu xeex yi ci laa gëjee stade boobu ba léegi dematuma décidé ni dootuma dugg dugg dëgg sama tànk ci stade lu dul concert. mi ngi noonu moom ku mi mel ne yow day dootu sawar ci yow ci loolu nawetaan la sax mais football boo xam ne dañu ni professionnel la. voilà ñu toll foo xamante ne si di investir ay million wax nañu dépassé euh, erreur arbitrage. mais bu fekkee ne arbitre def na erreur na sa équipe bind. nga topp Ligue Pro bu amul saafara. Mhm. nga wax ko ba réew mépp yëg ko ñu indi saafara voilà ndaxte arbitre comme ni ma ko waxee nit la dafay juum mhm. bari na match yoo xamante ni day am erreur d'arbitrage xëy na tey dalay dal mhm. suba mu dal sa morom mais lu ci mën a nekk rek euh, ci jamono joo xam ne ci supporters yoo xam ne sax li tax mu metti ma mooy ñoo xam ne dañ leen xame woon fair play allez Casa ñoom mbir mi ci ñoom la dal seen diggante ak AS Pikine mu mel ne li nga xam ne jot na fi jaar ki indi coow li. ku njëkk a man pour dire vrai j'étais pas au stade. dañ ma nettali rek. Mm. dañ ma nettali j'étais pas au stade mais li indi coow li nee nañu euh, Pikine euh, Casa da ko mëne woon 1 à 0. Mhm. temps additionnel bi jeex arbitre bi bàyyi mu continuer nee na mu siffler penalty Pikine égalisé. Mhm. ci la nee nañ supporteru Casa yi wàcc di wax ak arbitre bi fa la coow lu tàmbalee am na ku ci image yu ma gis man kuñ doon néewal doole xam naa kooku nag ñi mu àndal ñoom tam ñoo wàcc riposté loolu indi sànnante xeer toj ay affaire ci jamono joo xam ne Sénégal amul infrastructure sportive. on crie mi ngi fa mais xam nga. man li ma li ma gis nii gis man gisuma sécurité. waaw mi ngi fa je mais j'étais <laughs> ne si. Casa day mobiliser AS day mobiliser. <laughs> foofu noonu luñ fa force de l'ordre bari bari bari. soxna regarde les bari wuñu bari image yi bari na dañ ci tànn benn rek. pour illustrer ko la sécurité était devant chez chez Thion voilà malheureusement. à ah, suivre c'est triste c'est la vérité. bu ah, euh, ñu def li waat